ko d'accord gis nañ cinéma bi yaa ngi ciy def des choses énormes waaw mais sant yàlla rek sant yàlla rek parce que lu ñu mbébétoon la lu ñu bëgg la suñu passion la ñuy dund donc ñu ngi koy def ni mu war a yaakaar naa. Ah. mais gis nga ci au lieu au au gisuñu. awards yi non man tojaguma fenn bay bokk ci awards yi quoi maa ngi bay sama wax nànk-nànk. nan nga gisee showbiz bi est-ce que c'est difficile en tant que femme déjà fekk nañ la nga nekk ci membre de l'organisation et en même temps aussi yaa ngi ci li nga xam ne moom mooy activité bi ngeen def ak business bi ngeen def waaw yomb crise bi moom ñëpp xam nañ ne métti na yombul mais bon ñooñu góorgóorlu daal l'essentiel de faire a passion booy def li nga bëgg tu le fais même quand tu es fatigué da nga koy def. lan lu ko ci macha allah da ngeen ko déggoo wala nu mu demee noonu. non déggoowuñu ko nag <laughs> man ko yor ba mu amee 9 ba léegi damay ma xam dagg bopp

ñu doon dundee rek la ñuy continuer dundee en fait peut-être que quelque chose dina ci changer mais mooy loolu ça va. Euh, les acteurs sociaux si si ah c'est triste en tout cas parce que déjà même boo leen soo toogee di xalaat que ne am na ñu nu tëj rek yow da am lu la metti parce que mën nga nekk sa kër doo génn ay mois wala bu la neexee mais du moment où ñu tëj la fenn ba pare di la jox ay ordre rek c'est frustrant voilà ñu ngi leen di ñaanal yàlla leen ba te yàlla xiir leen ci lu ba ñu bañ ci delluwaat incha allah ñi fa duggagul yàlla leen um man yaay Fall laa en fait dama bëgg cant bu cant am dama ko daan wër en plus suñu waa kër ay murid lañu sut laa cee Ibra donc voilà man ay cant moo may bëggal en fait tey ay cant amoon fii musique am fee cant yi laay dem. jaaxle parce que ñu ma gën a mool ñoo fi nekk mais ba être li tax ñoom ñu ñu ciblé ma xaw ma mais ñu ma gën a mool ñoo fi nekk. <laughs> mais Coumba euh, Diouma naka gisee nga doon célébrité non sëy moom ci yàlla lay la dépendre du yow yaa koy choisiral sa bopp en fait yàlla moo naan Khadija mi moment bii lay sëy kii lay sëyal voilà c'est juste ça non non xamante wuñu si milieu bi non non avant avant may siiw laa ko xam Huh? je veux qu'on garde le même rythme affaire yi day nit ñëw c'est normal parce que yàlla xol lay fay te bu yàlla fayee xolam waxuma la fii sax mais feneen fu mu tëgg day fees dell. voilà maa koy wax li ma koy wax rek mooy mu gën fonk public am te leen jege parce que li commencé gu sax gis ci kanam di ngeen comprendre waaw <laughs> ok merci benn xale boo xam ne macha allah daa jong ma mënuñu woo romb te jëluñu ko ah da nga koo doon wala nu doon. non c'est pas l'habillement c'est le corps c'est le corps. <laughs> mais yaa yaa ngi jonga ma da nga ñëw seetaan si wala danga nga ñëw couvrir wala si sax bi nga bokk. seetaan si nag dañu ñëw seetaan si parce que Ngaaka moom genre mun naa ne moom wootee képp kuy dund rab rek war nga si tu vois dañoo yàgg di dund rab ñu ngeen may gisee nii nag duma def ay mbalax de rab rek laay am dañuy dem Ngaaka ji nañu ko xam nga rapport la boo xam ne rapport de population population bi soxlawee da leen ñëw wuyu si tout ça donc c'est normal mu xew la ñu ñëw loolu. ci Ngaaka rek ngay dem wala da dem aussi si yeneen rappeurs yi wala bu clash amee da ngay far. non man moom genre ku xewle damay dem su ma amee envie dem damay dem aw ma artiste bi laay dem wala artiste bi laa du dem wala affaire ku xewle ma gis ne mën naa faa dem dama fay dem. maanaam hip hop ngay dund daal. hip hop laay dund voilà hip hop laay dund hip hop laay dund. agence yi nii. dañ koo simple lii rek def yëfu kaana yaa ngi gën a xam damaa ubbi albumaar bi mu wadd rek ma ne ko yaay dem waaw <laughs> voilà mu ne noonu.